paar taat waaye digganteem ak maam ji moom kenn ko gën a jege nekk fi rek mooy doon wal abu ak baay nga baay day doon doom ja wal jaddu ak maamu góor wa in xalaa ak doonte kawe na maamu góor li tax mu doonte kawe na mooy lu mu sori sori rek doonte da du maam rek waaye day maamaat wala muy maamaataat waaye digganteem ak sëtam bi ko gën a jege doxu fi rek day daal doon li nga wax a ñeent la wax nga doom ju góor ak bu góor bàyyi ko doom bu góor ak baay ak maam ju góor nga doolu ci wal ak mbokk mu góor ñett la xam nu mën di deme mbokk mu góor ñett la da ko wàññi benn wax li waxe waaye ñett la mbokk mu góor mi nga bokkal ndey dong ak ñoo bokkal ndey baay dong ak ñoo bokkal ndey baay kon waxal noonu mbokk mu góor mi nga bokkal ndey képp ak ñoo bokkal baay képp ak ñoo bokkal ndey baay muy ñett yéppay doon soo ko boole ñeent ya nga waxoon nag mu daal nekk juróom-ñaar wamul axi ak doomi mbokk ak shaq yi xamante ab xarit awil abi wala ñeen wàllu baay wa in baxoon ak doon te sori woon daa am yaari mbokk yoo wax léegi yoo xam ne seen doom day doon mooy ki nga bokkal ndeeg bàyyi tamuy góor doomam jëy góor mën na laa doon waaye jëy jigéen moom génn na ki nga bokkal bàyyi képp itam noonu tamuy góor bu fa nekkul doom mën na laa doon waaye ki la bokkal ndey dong nag moom doom du doon benn yoon doomam du benn kon nga seetlu loolu ñetti mbokk nga waxoon waaye ñaar ya mooy ka nga xam ne yaa ngi moom yéen a bokk ndey baay ak nga xam ne yéen a bokk benn baay ñooñu rek la seen doom doon te fekk doom ji du góor boole ci waaye su mbokk mi nga xam ne képp ngeen bokk moom doomam du doon benn yoon moom nag dana doon moom ñoom ni ko in baxoon ak doon te sori woon day wane ni moom bu xasee doon doomi mbokk rek te amul ko gën a jege sori gënu ci dara ndegam moom kenn gënu koo jege ndegam waxoon nga juróom-ñaar ca mbokk ya boo ci boolee ñaar dooy mbokk yi nga ci teg kon muy juróom-ñeent wala xamu ak bàyyi tax bàyyi tax moom la ñuy wax bàyyi bu ndaw moom day ñaar moo tax mu ne ak choc yi ba di ab xarit awil abi wala ñeen wàllu baay sa baay bu ndaw bi nga xam ne moom sa baay ñoo bokk ndey ak baay moom la ñuy wax alxamu ak shaqiq sa baay bu bi nga xam ne moog sa baay baay rek lañ bokk nag mooy alhamdu lil abi soo tuddee alhamdu shaqiqu rek foofu la fukki yi mate boo ci doolee benn bi mooy sa baay bu ndaw sa baay baay dong moo koy def fukki benn nga doolu ci wob na xoo ak doom ju tax wa in xalaa ak doom te kaw woon na tax fi mu toll lay doon ndax mboolem ñaari bàyyi ndaw yi nga wax seen lay doon bi nga xam ne moog sa baay ñoo bokk ndéeg baay boo nekkoon doom day doon sa baay bu ndaw bi nga xam ne moog sa baay ñoo bokk benn baay it noonu bu fa nekkoon doom lay doon mu des nag sa baay bu ndaw bi nga xam ne moog sa baay ndey képp lañ bokk kooku moom moom ci boppam du doon doom du doon nga jàpp loolu. li nga wax moo ko jàppee fukk ñett la nga boole ci wasaw ak jëkkër am nga jëkkër day doon soxna su moo tax daal nekk fukk ñeent wa mawlan ni'mati ak góor gu xéewle ngor. boo gi xewale ngor mooy jamono jaam amee koo xam ne yaa goreel ab jaam sopp ku ne gor na yow ba nga ko see goreel waaye nag bu ko see génn àdduna mooy bu faatoo te amul kenn ko war a doon kon yow mi ko goreeloon koy doon su fekkee ñee doon bu ñu jëlee day des day des itam desoo yaa koy jël bu fekkee am ko war a doon jeex nag kon yow doo am dara yow mi ko goreeloon moo tax boole na ci waxoo moom al mu'tiqu mooy aji goreel ja te day firil moom la ñaamut ni la mooy aji goreel ja moo waraloon jaam boobu kon loolu mooy yi doon ci góor ngir nga wàññi ko wàññi bu tegal wala nga wax ne doom ju góor sët bu góor bàyyi ko doom ju góor bàyyi ak maam ju góor ci wàllu bàyyi ak mbokk mi nga bokkal ak mbokk mi nga bàyyi ak mbokk mi nga bàyyi ak mbokk mi nga xam ne ak bàyyi yéen a bokk ndey bàyyi ak doomu sa mbokk mi nga xam ne yow moom mbokk ma yéen a bokk benn baay nga ñëw ci baay tax daal ne sa baay bu ndaw bi nga xam ne moog sa baay ñoo bokk ndey baay foofu fukki yam nga nekk sa baay bu ndaw bi nga xam ne moog sa baay ñoo bokk benn baay nga wax seen doom ñoom ñaar nag bu doonee ñaar fekk ci fukk benn loolu nag fukk ñett nga boole jëkkër nag ñu fukk ñeent ak ku goreel ñu fukk juróom wala waari saatu way doon ne nisaay ci jigéen ña sabaxun juróom ñaar lañ maanaam ñu dellu ci jigéen juróom-ñaar la waaye boo ko feccee fukk lay doon ni mu ko wàññee rek moo de juróom-ñaar waaye ci fecc bi moom fukk lay doon ak bintu doom bu jigéen bu jigéen moo jël ci bopp wa ak doom bu jigéen doom bu góor wa in safalat ak doom bu jigéen bàyyi ko sa doom bu góor ndax waññi bu góor ko doom bu góor léegi bu jigéen ba ngay wàññi sët bu jigéen ba bàyyi ko doom bu góor bu ko defee nga ñaar doom te suufe woon na mooy lu mu suufe suufe rek maanaam mel ni sotaataat waaye amul ko gën a jege maam ji rek dana ko doon wal ummu ak ndey am nga ndey day doon doom ja muy ñett wal jaddut ak maamu jigéen wa in xalat ak doon te kawe na maamu jigéen na da ko wàññi benn waaye ñaar la maamu jigéen ci wàllu ndey ak jigéen ci wàllu ba yaar yëpp doon te waxoon nga ñett léegi ndax ne nga woon doom bu jigéen sët bu jigéen bàyyi ko doom bu góor ak ndey muy ñett boo ci boole yaari maam yi nag maamu jigéen ci wàllu ndey maamu jigéen ci wàllu baay nag kon nga wal uxtu ak mbokkum jigéen mbokkum jigéen ñett la fi toll mbokkum jigéen mi nga xam ne yéen a bokk ndey dong ak ñoo bokkal baay dong ak ñoo bokkal ndey baay kon xam nga boo ko doon juróom-ñee bu juróom-ñett war soo soxna xam nga soxna day doon jëkkër moo tax si soo jotu soxna mooy jabar day doon jëkkër bu juróom-ñeent wa mawlaatu ni'mati ak jigéen ju xéewale ngor ay jamono jaam amee jigéen bu goreelee ab jaam ba tey kam goreel gor la ni léegi waaye nag su faatoo koo kenn goreeloon te ko war a doon moom moo fab lépp moom mi ko goreeloon bu fekkee am na ko a day des ba tey moo jël desoo bu bu jeex nag doo am dara kon fukk yaa ngoog wa man xadda xawalaay kudul ñii ka abil ummi ni ki bàyyib ndey wa bil uxti ak doomu mbokk mu jigéen doomu mbokk mu jigéen jarbaat lañ ko nee na ci wolof foofu moom min zawil arxaami mi ngi bokk ci waroon jege ñaale ndey laa yarisu du doon shay dara nee na la wàññil ci góor ak ñi la wàññil ci jigéen rek ñoo war woon ci islaam lu weesu ñi rek duñ doon mel ni bàyyi fi ndey maanaam sa maamu góor mi xam ne moo jur sa ndey sa maamu góor mu jur sa bàyyi mooy doon waaye sa maamu góor mu jur sa ndey moom du doon ak ku mel jarbaat kooku du doon yooyu yëpp ñu bokk te ñee nga wax rek duñ doon mu daal dugg nag ci nañu doon ne fees loolu lay ab dog alfuroodu cër yi allati yi nga xam ne xiya ñoom usulun ay cosaan lañu sittatu juróom benn rek la nee na cër yi nga xam ne koy doom dana koy teggi te muy cosaan nga xam ne amul nu koo ba doon ab cër moom daal noonu rek cëru cosaan la moom juróom benn yi mu ne bëgg wax rek la ak nisfu genn wàll mooy benn wa genn wàll mooy nga xaaj alal ci digg bi daf ko ñaari xaaj koo ko tegg benn loolu mooy nisif waxoo moom nag farlu xam sa ci cëru juróom am juróom ñoo xam ñoo doon genn wàll albintu doom bu jigéen li suuf bi ñeel ndigg bu ñëwee doom bu jigéen digg mooy bi nga dul sa bopp rek mooy bi nga xam ne ki faatu moo ko dëgg dëgg lañ jublu ci doom jigéen digg wa bintul ibni ak doom bu jigéen doom bu góor indi xa dami xaa fa ñàkk doom bu jigéen digg wal uxtu ak mbokkum jigéen lil abi ñeel wàllu baay wal ummi ak ndey yaar yëpp wala abi ak ñeel wàllu baay kese indi xa dami fa ñàkk comme ndey ak baay wa sawji ak jëkkër maha xadamil xaaji bi ànd ak ñàkk aji wiir aji wiir mooy doom baa sët juróom ñi ñoo doon genn wàll doom bu jigéen ba jural bi nga xam ne ki faadoo ko dëgg dëgg laa bëgg a wax ak sët bu jigéen bàyyi ko doom bu góor ndegam doom bu jigéen dig la nga wax amut ak mbokk mu jigéen mu mbokkal ndeeg bàyyi moom ñëw bi bu fa nekkul mbokk mu jigéen mu mbokk moom bàyyi dong yem ci mhm. muy ñeent nga juróomee ne ko jëkkër nag waaye jëkkër ci sartu doom bañ faa nekk sët bañ faa nekk bu fa doom nekkee mbaa sët nekk fa jëkkër du amati genn wàll daañu wax la mu am rubu rubu faddu saw ji mooy cërub jëkkër maxawa joodil xaaj bi ànd ak amu aji yéer wala saw jaati ak benn soxna aw saw jaati wala ay soxna maxa faqadi yi ànd ak ñàkk aji yéer kaar moom li wax rubu mooy nga def ko ñeenti xaaj mu tegg benn al jëpp nga def ñeenti xaaj mu tegg benn loolu moom nee na ñaar rek ko doon jëkkër bi nga waxoon ci genn wàll léegi bu fekkee doom amut sët amut tey nag bu doom amee ba sët am waaw day bàyyi nisif ñëw ci kaar kaar moom mooy genn wàllu nisif boo ko seetloo léegi doom am na ba sët day bàyyi genn wàll ma gën a rëy ñëw ci kaar mooy ci ren gën a tuuti bu ko defee nag soxna muy benn wala ay soxna bu fekkee doom amut sët amut foofu la gën a bari lay ñëw maanaam benn jabar mbaa ay jabar bu fekkee seen jëkkër ji faatu bàyyiwul doom bàyyiwul sët foofu la gën a bari lee mooy kaar la ñu am bu dee benn soxna mu jël ko bu dee ay soxna ñu séddoo ko yemoo ci képp kon rëbb bu ñaara koy a suman far bu sawjati soxna ay sawjaati wala ay soxna ma xaw joodil xaaji bi ànd ak amuk aji wér maanaam suman ab juróom-ñetteel daa bàyyi ko ci samaan yetu alal yëpp boo ko defee juróom-ñetti xaaj benn boo teggee rek suman la moom na kenn rek ko doon mooy benn soxna mbaa ay soxna ñoo ci yemoo bu fekkee doom am na mbaa xam nga li waxoon léegi da nga ne woon bu fekkee soxna mbaa ay soxna doom amul sët amut foofu la ñu gën a bari li am kaar waaye bu doom amee mbaa am nag foofu la ñu gën a néew li am sumun wa sulusaani sulusaani far bu kullis na tey ni mooy cërëb ñëpp ñaar ñu jigéen ñoo xam ne fu saaxi doon topp lu ko ëpp tastaxiqu dana yeyoo ihdaaxun na kenn ci ñoom an nisfa genn wàll idan faradat ndem wéet na wax gàtt li waaye leer na daa wax ne léegi bi nga wàññi nisif ñu koy donn jëkkër rek moo ciy góor te mu mënta limu ñu fi des moom jigéen dañ te mën nañoo limu bañ doonee kenn dañu am genn wàll ga nga waxoon mu nisif waaye koo ci xam limu nga ba doon ñaar mbaa nga ëpp ko rek daal jël suusaani man doom bu jigéen mu nga njëkk a tudd bu dee benn lay am doom jigéen mbaa te góor waxu ca dañu jël ñaari ceer suus mi ngi bàyyi ko falaa bu jur ñett boo dee kuy saam boo defee ñetti saam benn saam bu mooy suus boo ca boolee ñaar boole nag muy benn nag moo ci machine wala ci stylo bu nekk nag mu doon wàcc lu toll noonu mbaa mu multiplier ko deux ko doon mu doon loon mu boole loon nag séddale ko ñu ko war a jox doom jigéen di itam limu wala sët jigéen yi bàyyi ko doom bu góor buñ limoo wala mbokk ci néeg bàyyi buñ limoo wala mbokk ci wàllu waay buñ limoo ndax ñeent yooyu ñoo fa nekkoon muy doom bu jigéen digg sët bu jigéen bàyyi ko doom bu góor mbokk mu jigéen ndey ak bàyyi mbokk mu jigéen ci wàllu bàyyi ñeent yooyu buñ beroo kenn képp nekk fa bis fi la yam ko ci xam ne yàlla ña nga àndal yéen moo daraja ngeen limu ñaar mbaal xilal sulus wa tulus tulus fardul ummi mooy cëram ndey maa faqdil xaaji bi ànd ak ñàkk aji wér walis nañu ak ñaar fasaahi doon topp lu ko ëpp mu sulus moo bàyyi ko salaasatu ñett moom ñaar a koy doon ndey mooy kenn ki ndey nag moom bala mu koo doon ngay wax ne doom nekku fa sët nekku fa lu mat ñaari bokk nekku fa loolu ab sart la ci boo gaawantoo nag doo gis doom doo gis sët waaye lu mat ñaari bokk dafay nekk yooyu jamono bu ci ñëw ñu xamal ne lu mat ñaari bokk nekk doon di mbokk yi duñ doon sax du tax rek mu am sulus day daal dem ci cër ba gën a yow mooy sulus bala ci kanam kon ndey balaa doon na sulus nga wax doom nekku fi sët nekku fi lu mat ñaari bokk nekku fi muy kenn mbokk ci wàllu yaay bu dee men doom moom sudus ak juróom benn lay am dañ ko wax léegi waaye nag bu limoo mat ñaar mbaa moo ko ñu bokk néegu ndey dong laay wax bokk ci wàllu ndey su boobaa ñoom suus lañ leen di boole suus boobu ci wàllu bu ñu limoo ñaar mbaa ko moo xam góor kese lañ moo xam ne kese lañ moo xam ne jaxasoo góor ak jigéen leen di boole sulus te ñemoo ci képp ñoom bu ñu ko def góor ñaar jigéen benn ñoo ci yemoo képp moom góor ba dopp la jigéen ja kon sulus a ngoog muñ moo ci sudus wa sudus sudus mi ngi bàyyi ko sittatu juróom-benneel sittatu juróom-benn ci la bàyyi ko ak sittatu boo ko defee sudus muy ab juróom-benneel benn maanaam boo ko defee juróom-benn saam daal benn boo yëkkati rek sudus la boobu fardu sabxatin cërub juróom-ñaar la moom lu koy doon daa bari juróom-ñaar yi mu la bëgg a ku ci nekk dana ko doon al abu bàyyi maawu joodil xaaji bi ànd ak amuk aji wér maanaam bàyyi bu doom bu góor am wala sët bu góor am jàppal ne mënta wér sudus moom dong lay am dara du lu caa bu fekkee doom ba day jigéen nag mbaa muy sët bu jigéen mbaa kenn ku war am cër nag foofu bàyyi da koy jox suddus mu téye ba noppi tam nag nga bàyyi mu xaaru des bu desee nga dolli ko ko bu desul nag mu yom ci suddus bi nga ko joxoon waaye bu doomu góor xasee mbaa sa du góor jàppale moom suddus bi képp ci la yem moom wal ummi ak ndey maa wu joodil xaaji bi ànd ak amu aji ci kaw sart bi nga wax bu xëttee maanaam bu doom xasee am ak lu doom doome ak bu sët xasee am ak bu sët sëtee ak lu ñaari bokk bu xasee am boo ko fàttee dara ci amee rek day day day day daal bàyyi sulus mi nga weesoon mi am ñetteel ñëw ci suddus ak juróom-benn wal jaddit ak maam mu jigéen idan faradat ndem wéet na aw kaana wala nekk maa ànd ak moom uxraa meneen maam tusaari ko waa moom dana bokkaaleel moom maanaam maam mu jigéen ci wàllu ndey ak maam mu jigéen ci wàllu baay ñooy moo lu mu ci mën doon rek moom suddus képp lay doon moom du ko weesu benn yoon su dee menn mi doon tam war a doon su dee menn maam mi war a doon suddus lay am su fekkee da ko bokk ka féete ci wàll ga ci des ñu war a doon ñoom ñaar dañ leen di boole benn sudus ñu seddoo ko ci digg bi waaye duñ jox kenn ku ne sudus waa waahidati ak benn fa ak sara topp lu ko ëpp min banaatil ibni ci doom bu jigéen doom bu góor isaakaanu dem nekk na xunaaka foofee bintu sulbi doom bu jigéen digg loolu nga jàpp ko maanaam bu fekkee kooku dafa bàyyi doom bu jigéen boo xam ne moom moo ko jur dëgg-dëgg ak sët bu jigéen boo xam ne benn la mbaa mu ko mu bàyyi ko ci doom bu góor kon doom bu jigéen bi mu jural boppam mooy moom genn wàll sët bu jigéen ba nag moom bu dee kenn bu dee kenn moom nga jox sudus bu dee mbooloo ñu seddoo ko bu dee kenn mu jël ko su boobaa nag nga def ko juróom-benni saam mooy gën a noppale boo dee saam ndax boo defee siis boo daggee ñettee rek moo doon genn wàll nga jox ko doom bu jigéen dëgg-dëgg ñettee kon moo genn wàll ñettee des nag benn boo ci dëgg rek la nga daal di koy jox sët bu jigéen bi bu moom dong bu dee ay itam ñu seddoo yom ci wal uxti ak mbokk mu jigéen lil awi ñeel wàllu bàyyi faak sara topp lu ko ëpp ma xaw a uxti ànd ak amul mbokk mu jigéen ak shaqiqati ma di ab xarit bu ñëpp su fekkee moom mi faatu dafa bàyyi mbokk mu jigéen moo xam ne daa bokk ak moom ndey ak bàyyi ak mbokk mu jigéen moo xam ne bàyyi dong la bokk ak moom man naam na muy kenn mbaa moom kenn kon ki mu bokkal ndey ak bàyyi te muy jigéen te kenn dong la moom mooy am genn wàllu alal ja ka mbokkal baay dong na muy kenn mbaa mopp kenn ñu jox leen suddus bu dee kenn mu jël ko bu dee mbooloo ñu seddoo ko ja ba tey moom itam def ko six juróom-benn boo dee saam moo lay gën ndax ba ko defee juróom-benn ñett yi moo doon genn wàll nga jox ko mbokk mu jigéen ndey baay wi ñett yi des nag benn boo ci tegg rek moo doon suddus nga jox ko mbokk mu jigéen ba ci wàllu baay wala boo koy kenn itam nga jox leen ko ñu seddoo yem ci képp. wal waahidi ak kenn bi waladil ci doomu ndey kaana moo xam nekk la zakaran di góor aw unsa wala maanaam mbokk ci wàllu yaay moom bu dee xam ne lu mu wut suddus lay am lay am bu fekkee lu mun a weesoon ko léegi ci suus suus waxan nga fa mbokk ci wàllu yaay buñ lu moo mat ñaar mbaa ñopp ko léegi nag bu dee kenn dong muy góor muy jigéen xam ne du weesu cër bi nga wax muy suddus ab juróom-benneel wal jaddi ak maam bu góor maxal wala di bu àndeek doom ak wala ibni wala doomi doom bu góor maanaam maam ju góor bokk na ci donnam mu doon suddus bi nga wax bu xasee nekk doom bu góor mbaa sët bu góor moom jàppal ne moom dong la mën mënta woo suddus su fekkee nag léegi doom bu góor amut sët bu góor amut te waroomu cër am fa ay mbokk am fa kooku ak wàllam la léegi léegi tam mbokk mbokk yi dong nekk fa xam ne ñooñu doon amuñu fa ak wàllam la waaye daal téere yi suñoo loolu baabul jëddi wal ixwati moom daa am fu ñu koy ber waaye fi mu lay wax góor bu xasee nekk doom bu góor moom sudus dong la mën a am mënta joxe ba weesu ko am faslun lii ab dog góor aw ibnu wala doom bu góor aw ibnuhu wala doomam ju góor moom doom bu góor dafa jublu ibnul ibni doom bu góor doom bu góor kon mu jël almaal alal ja jamihu xam ne ñu doon ci asobal asobal mooy soo fi nekkee doom alal jëpp yaa ko moom du war nga wokk miraasal da ngay rek boo ko xamee nam tool daal di jël boo fi nekkee boroomi cër nag bàyyi boroom cër génn nga jël la ca des loogu loolu nag bàyyi dana ko def waaye du saa yu nekk maam mu góor dana ko def waaye du saa yu nekk doom bu moom moom lay def saa yu saa yu nekk moom lay def sët bu góor itam noonu lay def waaye bàyyi maam moom daal koy def daañu def na ko def sam mooy doon na ci cër waxoon nañ bàyyi fan lay doon ne sudus waxoon nañ maam jabar itam fan lay koy doon ne moom sudus loolu bu góor sax bu góor amul benn cër boole waxal moom bu fi nekkee ñoom dong daal jël lépp su ko defee walis naa ni ñaar mooy ixawati ci ay mbokk fa saa yi doon ko wut yàq si moona xoo dinañu seddale alal ja bi sawiyati ci yemoo ah nee bu fekkee ne ñoom dañu di ay doom yu góor ñoom ñëpp mbaa ñu ay sët yu góor ñoom ñëpp moom ndey baay ñoom ñëpp mboolem ay bokk yu góor bokk moom bàyyi dong ñoom ñëpp yooyu yëpp ñooy moo dangay wàññi ne bopp yi toll nga sédd alal ja saamee toll noonu ko defee kenn ku ne tegg benn ndax ñoom ci ñoom zukoorun ay góor wa inaatan ak jigéen fa yaqsimoonahu danañu ko séddale li zakari ñel na góor ga mis lu xamdil umtayni kem cërub ñaari jigéen li nga wax léegi mu doom yu góor yi mbaa sët yu góor yi mbaa mbokk yu góor yi bokk néew bu ndey ak baay yu góor yi bokk moom baay ñooñu nga wax dangay wax léegi ne bu dee ñoom góoru kese lañ ngay wàññi nañ toll rek siddi alal ja saama toll noonu mu ne kenn ku ci nekk bu xasee jaxasoo jigéen loolu dañ na dañ daal di séddoo góor ñaari jigéen benn boo koy def boobaa da ngay wàññi góor ku nekk mu ñaari jëmm yu taxaw ku defee nga wàññi jigéen ñu jënn jëmm noonu lañ koy defee bu mu seetloo doom ja léegi bu ne nee dafa bàyyi benn doom bu góor ak benn doom bu jigéen jàppale ko ñett fa nekk ndax doom bu góor da koy jàppe ñaar ndax ñaari soxla lay tegi bu ne bàyyi na ñaari doom ñu góor ak ñaari doom jigéen jàppale juróom benn fa nekk ndax ñaari doom ñu góor da koy jàppe ñeent ko defee boo ci boole ñaari jigéen nag mu juróom benn boo defee saam itam noonu loolu ñaar jigéen teg benn ba tey bala ngaa jàll mën nga leeral foofu ne bàyyi ndaw yi bu fekkee dañoo limu loolu la ñu doon ne seet na lim ba toll rek nga def leen saamatal noonu kenn ku ne tegg benn ndaw bàyyi ndaw itam noonu la ñu def ba tey doomu mbokk yi ñoo sës sax ci mbokk yi bu bu mbokk yi jàllee doomu mbokk moo cee sës ci doon su ko defee nag léegi bàyyi ndaw doo cee topp xamal ne doom mbokk itam noonu la ay góor rek la ñu doon ndax doomu mbokk mu góor rek moo doon waaye doom bu jigéen mbokk mu góor moom du doon foofu am na teqale ba léegi doomu mbokk ma mbokk ma day nekk góor moom doom ci mu nekk góor waaw waaye doomu bu fekkee moom doomu mbokk mi jigéen la waaw kon moom du doon mhm. mbokk mu jigéen ci boppam moom day doon moo xam day bokkoon yow day doon mbaa bay doon mbaa day bay moom mbokk mu jigéen bi waaye nag mbokk doomam moom xam góor la moo xam jigéen la kon doomu mbokk moom balaa doon na nga cay sart mu nekk mu góor te bàyyi ko itam ci mbokk mu góor waaw loolu nga seetlu ko ci bu baax su ko defee nag kon nga doon jàpp rek ne mbokk yu góor yi bu fekkee jaxasoo yu jigéen kon te leen defal saam yu yem rek kenn ku ne bu fekkee ne mbokk nag ay mbokk yi ndee bàyyi wala ñu bokki nag di ay góor ak jigéen su boobaa am na wolof góor ñaar jigéen benn ndokkee ci wàllu yaay nag moom dañ jaxasoo di góor ki jigéen tam du tax ñu def góor ñaar jigéen benn moom dañu yéenoo képp soo ñëwee nag ba ci wàllu mbokk yi nag ni ma la ko waxee léegi doolu moom góor képp lay doon faw boo ta rek nga defal leen saamu toll noonu kenn ku ne tegg benn wari si dana doon bi tensidu ci asobaal góor yu dini goo xam dana yooru dana yooru bi nafsi ak boppam aw bi zakarin wala mu jaaree ci góor doon na ci arsabaal dana ko firi léegi waaye ka koy def foo ko fekk góor lay doon jigéen moom niiwaana mu def ko daa daañu ko wax rek waaye barewut daañu ko leeral bu yàlla waaye góor rek koy def te góor gi day aajowoo digganteem ak néew doon kenn doxu fa nga ko misaal doom bu góor doom xam ne kenn doxu fa moo sus ci moom rek wala boo ka dox digganteem ak kam doon góor la doon ne moom man nga ko misaale sët bu góor xam nga sët bu góor ka dox digganteem ak maam jëla doon doom ju góor a fi dox waaw kon jàppal ne kii asaba góor lay doon te day sës ci doon góor wa maana tension bi maanaam asabaal nag mooy ànd man nag ka nga xam ne yarutu dana doon ne bii ci moom yasdaxraqu dana labal mooy dana jeexal jamexal maali mboolem alal ja idan farada ndem wéet na wa yastaxiqu te mu yeewu albaaq yi aji des ja banda daw sihaami ci gannaaw waroom cër ya inkaara ndem nekk na maaxoo ànd ak moom daw sihaamin boroomi cër waaw ku doon ci asabaal mooy koo xam ne doo ko waxal benn cër ne ko moom nga doon dangay seet daal bu fekkee moom dong moo fi nekk nga xam ne kenn ko war a ku may moom nekku fi nga ne ko yaa yoo génne cër yi nga jox ko ko mu baree mu néew rek bu fi nekkoon ak yaayam mbaa baayam mbaa doom bu nekk feeg maamu jigéen bu góor nekk feeg soxna yëpp ñooy moo dangay génne cër yooyu la des rek nga jox ko ko moom doom bu góor bu waaye amul benn cër boo ko waxal sët bu góor ba tey noonu lay def yi def loolu nag daa bari xëy na wàññi ko xëy na du ko waaye doom bu góor sët bu góor mbokk mu góorum ndey ak baay mbokk mu góorum baay ñaari baay ndaw yëpp ak seen ñaari doom yëpp mm-hmm. mbokk yi ma wax léegi seen doom ca la maanaam boo ñaari mbokk yi mbokk mu góorum ndey ak baay ak mbokk mu góorum baay xam ne seen doom loolu la ñu def ñaari baay yu loolu la ñu def seen doom loolu la ñu def koo xam dafa dafa xéewale ngor nga waxoon ko ci gannaaw loolu lay def ñëpp loolu mooy seen wàllu ci doon bàyyi maam ji góor na léeg la ñu def ko leen la ko def am na foo jàngoon ci gannaaw rek ñu jël fa sudus te loolu mooy bu doom bu amee mbaa sët bu góor ñoom moom ñëwee suuf li ak doon la alxaj bu wiir mooy tee doon xismaani ñaari xaaj xaj bu isqaatin yiirug rotal rotal mooy daaneel ko ba amatul dara wa xaj bu naqalin ak yiirug toxal yiirug toxal buñ ci gën mooy ku am cër bu mag ñu jëlee ko yóbbu ko ci cër bu gën ndaw booba ñu ko daan am sulus ab ñetteelu nekkiwaay ñu jëlee ko ci yóbbu ko ci sudus ab juróom euh, ba ci kanam day def wéru toxal des na ko tudde ak toxal amma xajibul isqaati ndaal wéeru rotal falaa yal xaqu du yéeg maanaam du jot man koo xam ne yoon sang def na ko askan yow mawti jëm ci néew ba binaf si ak boppam kal bani na ni ki doom yu góor ya banaati ak doom yu jigéen ya wal aabaay ak baay ya wal ak yaay ya waman ak képp koo xam ne fii maanaahum nekk na ci seen maxnaa tam ñooñu kat ak zawja mooy jëkkër wa zawjata ak soxna nee na wir goo xam ne nga ko wir ba mu daanu du na ñoo xam ne kenn leen koo def lu yàgg-yàgg daanu doon te muy ñu mooñu doom bu góor faaw mu doom bu jigéen noonu faaw mu baay faaw mu yaay faaw mu doon jëkkër faaw mu doon jabar ja jabar faaw mu doon jëkkër ja ñun moom jàppal lu yàgg yàgg kenn mën leen a daaneel faaw rek ñu cër kenn mën leen a wér bañ daanu wala xaq dañuy yëg moom yurug daaneel googu man xadoo xam ku bokkut ak ñoom ku bokkut ak ñi nag moom mën naa am yër ko ba daanu mooy du amati dara ci misaal fadlul ibni doom bu góor doom bu góor yax jugu fa dana ko wér al ibni doom bu maanaam sët bu góor la wax ne bu fekkee bàyyi ma nga fa moo xam bàyyam dëgg dëgg la moo xam day bàyyi ci moom waaye moom bàyyam ñoo bokk waaw jàppal rek sët bu góor moom bu doom bu góor rek jeex na sët bu góor du dara doom bu doon moom wal jaddu maam mu góor it yax ju góor dana ko wér al bàyyi jàppal ne maam ju bu fi bàyyi nekkee bàyyi doon waaye maam ju góor du am dara wal ixwatu mbokk ya mutlaqan ak nu mu mën di demee yaxjubuhu dana leen yiir al ibnu doom bu góor moof na ak doom doom bu góor doom bu góor wa in safala ak doon ci suufee woon na nga doolu ci wal ak baay mën ngaa jàpp takk-takk boobu mbokk lu mën doon doonte mbokkum ndey ak baay la moo mu bokk ak moom ndey doom mbaa baay doom mooyee moo bu doom bu xasee am rek xamal ne mbokk yëpp daanu nañ waaw bu la nee daal ki faatu bàyyi na doom bu góor xamal ne amul mën mbokk mu koy doonati bu leen ki faatu bàyyi na sët bu góor noonu la xamal ne amatul mën mbokkum ko doonati bu leen ne bàyyi ki faatoo mooy mooy bàyyam dëgg-dëgg xam bu maam bàyyi la jàppal ne kon mbokk yëpp daan ne amul mën mbokk mu doonati hmm. wa banul ixwati doomi mbokk yi yaxjubuhum dana leen yiir abaawuhum seeni baay wa man ak ka nga xam ne yaxjubuhum daana yiir seeni baay doomi mbokk yi la wax ne bu fi mbokk yi nekkee duñu amati dara xam nga bala ngaa tudd doomi mbokk day fekk mbokk amut waaw mbokk amut nga jël doom ja waaye day fekk mbokk nga fi moom dootul doom ja kadaa yu wér seeni baay nag mooy baay may nga waxoon ak doom bu góor ak sët bu góor ñoom ñu daay wér mbokk yi bu ñu mënee wér mbokk yi naa bañ a ñëw ah, nga boole ci nag wala jot ak maamu góor foofu fee daanoo day wane ne doomi mbokk yi. maam mu góor na leen daaneel kooku sew sew la ci miraas maanaam maam ju góor mënta daaneel mbokkum ndey ak baay wala moom baay waaye nag day daaneel doomu mbokk su fekkee mbokk amul doomu mbokk rek am fi maam mu góor nekkee daaneel ko xanaa maam mu góor doon waaye doomu mbokk la doon waaye nag maam ju góor mënta daaneel mbokkum ndey ak baay mbaa moom baay waaye dana daaneel nag mbokkum ndey dong mbokkum ndey dong moom dafa daanu mbokkum ndey dong moom doom bu jigéen dana ko daaneel sët bu jigéen dana ko daaneel maam ju góor ñoo ko daaneel te ba tuuti mënu ñoo daaneel mbokkum ndey ak baay mbaa baay doom loolu nga ko ba hmm. nga jàpp fi mu wax li mu wax fi nag moom mooy doom mbokk a daaneel baay yi tax yax jubuhu dana ko wér balul ixbati dool mbokk ya waman ak ka nga xam ne yax jubuhum daana wér dool mbokk ya maanaam bàyyi bu ndaw ba la nga tudd day fekk ndokk yu jeex dool ndokk yu jeex war nga seetlu ko bu baax maanaam li fekk ndokk yu jeexut dool ndokk yu jeexut bu tudd baay bu ndaw boo gisee bu fekkee gisoon nag menn mbokk gisoon menn dool mbokk nag nga tudd baay bu ndaw nag baay bu ndaw itam nga njëkkee nga bokk néew bu ndey ak baay tor caa teg nga bokk ak moom baay dong ndax xam nga ko bokk moom ndey dong moom du doon